كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديا سندع الزبانيا كلا لا تطعه واسجد واقترب الحمد لله السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ñoo ngi nuyu mbooleem waa alquran di ci jiital sunu xalifa yu tedd yi ci réew mi ak imaam yi ci jàkka yi ak jumaa yi ak ñi nga xam ne ay njiitu association islamique lañu di nouveau président de la république avec le gouvernement président ensemble national ak mbooleem député yi di président jox la président fédération bi ëmb du Sénégal Mohamed Moustapha Ahmedouane. Wane waaye di vice président Hadji Malick Diop mi Chituru, bureau régional bu Dakar ci njiital Baye Kéba Gaye ak mboolem ñeenti département wala juróomi département yi ci dakaar di Dakar Pikine Guédiawaye Rufisque ak Kër Massar ñu uuti ci mboolem 45 département yi ci senegaal yépp tey jii di àllarba 5 janvier 2022 ñaari fan ci wéru maamu koor 1443 dañu wax ni dañu dajé fi tay ci néegu yàlla bi ngir naqarlu ak leeral naqarlu ak leeral ay kaddu yoo xam ne jot nañ ko lundi ci suba le 27 décembre 2021 bàyyi koo ci seen nus ngóor suñuy wax ismaïla kambe ismaïla kambe nee na dafa jiite benn ong wala benn mouvement bu ñuy wax touche pas à ma sœur nee na kàddoom yi mooy def na tourné ci daara yi nekk ci sénégal ñaareelu kàddoom mu ni ndonga yi nekk ci daara yi lu nekk lañ fay def sëf njàng alquran subhanallah hada buhtaanun azim ñetteel ba mu ni ndonga yi ci daara yi dañ leen fay torturer di leen fa tëdde affaire góor jigéen joxe na sax ab lim nee na lu ëpp soixante pour cent ci daara yi noonu la ñuy doxe duñ fa jàng arafu alquran affaire góor jigéen ñu di leen di torturer di leen di maltraiter ñeenteel ba mu ni moom mooy jël responsabilité ak waa mouvement dana song daara it ànd kook état tëj daara yi juróomeel ba mu ni mi ngi yedd état bi ci programme bu mu jëloon zéro enfant dans la rue moom nag kambe la mu ko tudde mooy zéro taalibe te rajo yi ak télé yi déclaration boobu lundi matin le 27 vingt 2021 noonu lañ ko jàllale ba nu jëlee suñu téléphone wax wax ak moom parce que dañu ne bala ñu cee wax nañu déggante ak moom dafa wax moom kambe te man maa ko woo téléphone man man Mansour Samb mu ne ma li ma journaliste yi waxal waxuma ko ma ne ko kon baal ma delluwaat fa ñoom ñu jox ma kàddu yi ma jox la ko am nga whatsapp ma yónnee la ko mu ni amu ko ma ne ko kon maa ngi lay jotaat léegi ma wut firnde ci journaliste yi ndax ñun journaliste la ñu attaqué wala yow foofu bi ma jokk ak journaliste yi ju jox ma ay kàddu yi boppam ma di ko woowaat ba tey may wax ak yéen mënatuñ koo jot ba tey may wax ak yéen kambe moomee xoma kàmb gu mu dugg waaye mënuñu koo jotaat ngir leeral wax jooju nag tax ñu daje yéen waa senegaal yéen waa àdduna tuuma ju mit la gën a bon ci àdduna ñu teg ko ci deru ña gën a baax ndax xayrukum man taallama alqur'ana wa allama ndax loolu su amee ak ci kummanti jugee moo xam dañ ko yabal yabaluñ ko am na ñu nekk ci ginnaaw am na ñu nekkul ci ginnaaw am na lu muy wut ci àdduna muy siiwte ak financement ak lu ci mën di xew ndax loolu fédération bi taxawu daara yi ndax jaadu na mu noppi ci yaakaar naa da di wax déedéet jaaduwul ñu noppi ci loolu nag moo tax duñ wax rek ni ku ñàkk fayda la ku ñàkk solo la ndax arab yi nee nañu fa muzamu naari min mustasgari sharari nee na xeeb ga fer ñeent mu lakk sag dàgga kàddoom gi mu njëkk wax nii wër na daaray Sénégal dañuy wax sunu kàddu ca kaw ngeen baal ñu yéen ñuy dégg ci kàddu gi bu leen déranger waxut dëgg day kàcc waxut dëgg gàcc wu rëy la ndax dëkk ya mu cité di Géejawaay Pikine euh, Dakar Rufisque ña jiite bërëb yooyu ñoo ngi fi toog am recensement yu ñuy def képp ku nar ci daara lu baax dana ko jaar ca ca ñooñule amu ci kenn ka nga xam ni xam nga kan mooy Kàmbe man maa ngi doog a dégg aw turam te man maay général bu régional bi waaye en même temps sax di secretaire général bu national bi 45 département yépp xam naa département bu nekk kan moo ko jiite ci sëriñ daara yi te kuy kàmbe xamuñu ko kon bu ne wër na daara yi Sénégal cité Guédiawaye Pikine Rufisque Dakar waxu dëgg benn ñaareel ba ci waxam mu ni daara yi lu nekk lañuy def sëf jàng alquran waxut dëgg takaadu samawaat wal ard yatafattar na ñoo ngi bëgg a ci kàddoom yu rëy yi bërki démb ca kokki muy ndajeem daara ju mag financement yu rëy ak bis bu nekk ay tari ak grand prix Senico bi fédération bi di ànd ak Senico ñu jël fi coupe du monde tey jii ñuy wax ak yéen démb président de la république ña euh, tàggatoo na ak gaynde Sénégal pour ñu dem coupe d'Afrique dégg ngeen doom wax na leen ni indeegu leen coupe coupe lañ soxla waaye foofu xëy na président dafa fàtte ni Sénégal amoon na coupe d'Afrique amoon na coupe du monde ca Cheikh Moujtaba kon ñu dem ba gàcc ngaalaama ñu indi fii coupe du monde um ñu indi fii coupe d'Afrique yelloowuñu ak kàddu yooyu ci média Sénégal kon danoo jàpp ni ñun journalistes yi ñoo nu waroon a woo ni ñëw leen def point de presse ci tuuma juré ji ñu teg seen kaw kon ànd ak résultat juré yi daara di am ay exception parce que kuréel goo gis liggéey boo gis du ñàkk am ay raxu waxuñu ni daara yi ay malaaka la ñu de njuumte du fa am te loolu su amee la tax muy siiw mooy dafa baaxoo du am te fu mu amee ci daara ku booboo daara la waaye jëmm yu sell yi ngeen gis ñii dey ak mbon sori na ak ñoom ñetteelu kàddoom mu wax ni am na 60 lu ëpp 60 pour cent bu mu recensé ñoo ngi koy teg devant public ci kanam àdduna yow Kàmbe ak ñi nga àndal lan mooy say épreuve lan mooy sa sukkës ci sos ci sa pour pourcentage boobu nga ni 60 pour cent boo ko defut suñuy avocat day ñoom la ñuy déglu te lii ñuy def ni ànd nañ ci ak suñuy avocat te bi am na pôle avocat bi nga xam ni tey ñoo koy gunge lépp lu mu laaj nag ñoom lañ ciy déglu suñu pôle avocat boobu lu mu laaj moom lay di moom lañ ciy déglu bu doon suñu sago nag bant du damm mbir mi réglé Euh, kon la mu wax ni mi ngi jël ay responsabilité am ragalu ci dara di ci woo état bi gëm naa ni état bi nga xam ni fan yépp ñoo ngi dégg ku ciy wax yaa ngi jéem a tari ab aaya te fédération bi mi ngi leen di woo pare na pour jàppalante ak yéen ci jël pind bopp àlliwa ak nafar ba président de la république bu mënti doon ministre bu mënti doon buy Al alquran day rafet ni mos xamna ni bëgg ngeen ko bëgg ngeen alquran bëgg ngeen ko jang motax ngeen di ci jëm ñun ñi sax di ci liggéey di ci xeye ko gont dañ ci joom kon ñok leen di wo ngeen ñew ci daara ji ngeen jang kon ki lay woo ni la ñewal ci daara ji nga jang yaakar naani du ngeen dégg waxu kambe bobu xamni kuko ku kuko top mu duggal la ci kàmb ak sawara ku top waxu kàmb kambe mu duggal la ci kàmbug sawara yéen ñi sant kàmbe maa ngi leen di jéggalu su ko defee kon ci jeextalu suñu kàddu fédération bi ak mboolem kuréelu daara yi ci senegal ñoo ngi conseiller état bi na gën a jàppale daara ci budget bii ñu wote barki démboo njaay ci assemblée waaye ñoo ngi ñaan état Sénégal ak assemblée président assemblée nationale lii nga xam ni sàmm jikko yi ànd na ko fédération beeg kuréelu lislaam bi yépp te ñu yëg ni tey jii ñoom xëy na ñoo ngi ciy daje te mooy voté góor jigéen nañ ko criminaliser loolu ñoo ngi leen ciy woo te bokk nañu te Kambel moomu bokk na ci ñiy jàppale góor jigéen ñooñu moom mi koy tuumal daara yi moom Kambel daa bokk ci ñiy jàppale góor jigéen ñi képp kuy jàppale góor jigéen ñi rek góor jigéen la sunu baat ca kaw kon ñun daara ji ñoo ngi wax ni dañoo bëgg ñu criminaliser góor jigéen googu ba képp ku ñëw bëgg a rax ci daara ji bëgg ko fee def def na kirim bu rëy nañu def ci moom la mu yelloo kon lii mooy kàddu fédération bi ñoo ngi wax ni Kambé na indi ay preuve ci juróom juróomi tomb yii mu indi te média bi tasaare ko su tasul ci média bi duñ ci wax ndax moom tekkiwul dara su tasul woon ci média bi duñ ci wax allahu akbar allahu akbar allahu akbar alquran mooy dëgg daara mooy dëgg ku jàppale daara yàlla nga tëdd ku bëgga toroxal daara yàlla na nga torox kuy góor jigéen yàlla na nga torox كيب كو بغا ييكت كو نيوال ييكتي دارا وقطع دابر الذين ظلموا بروم بنانا نينا رق نانيو ديغال نياغا كبجا نيو نجا كو بغا موتش نانغا فخه باي دارا nga mën a mucc wasalaamu aleykum wa rahmatullahi